الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اخوه الايمان mbokk yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko sunu xutba tey mooy rajulun zakara allaha xaaliyan fa faadat aynaa benn waaye ngi nii boo xam ne góor la wala jigéen mag wala ndaw zakara allah dafa fàttaliku yàlla tudd ko waaye ba mu koy def moom waa jooju ba muy tudd yàlla xaaliyan dafa fekk mu wéet mu nekk moom kenn ba mu defee loolu fa faadat ay naa ay bëtam daldi tuur rongoñ moom waa jooju ba muy tudd yàlla wala moom nit kooku ba muy tudd yàlla moo xam ci biir néegam la nekk moom kenn wala fa muy liggéeyee moom kenn wala ca toolam moom kenn almuhim ba muy tudd yàlla di ko fàttaliku moom kenn la cundum loolu lan la ko jural tudd googu mu tudd yàlla fa faadat ay naa ay bëtam daa di walangaan daa di tuur ay rongoñ yu bare bare bari wa qad naala hadihi almakaana bi salaasi sifaat moom waa jooju wala moom doomu aadama boobu moom nit kooku tudd yàlla ca ba mu wéetee ay rongoñam daal di tuuru li ko may loolu mooy ñetti melokaan al ula li annahu kaana min adh-dhaakirin bu njëkk bi mooy moom waa jooju dafa bokkoon ci ñiy tudd yàlla moo tax ba mu wéetee xelam nekk ci yàlla la mu tàmmoon a def looloo dellusi ci moom looloo ko may loolu moo tax nit war a tàmmal boppam tudd yàlla wa dhaakirina allaha kathiran wa dhaakirat waa ji la mu tàmm rek looloo ñëwaat ci moom gis nga nit ñi léeg-léeg nga dugg oto oto bi yegg ci doodaan wala mu yegg ci pax mu dugg ci pax mi ak aliir bu doy waar nga dégg nit ñi lu ñuy wax yaa sàmba yaa demba yaa lu tax ndax loolu lañu xam ku nekk ndax lu nekk la mu am loolu lañ ci fekk waa ji la ko may lu njëkk li mooy li annahu kaana min adh-dhaakirin الثانية لأنه كان في خلوة بربه بعيدا عن الناس moom waa jooju dafa tàmm wéet dafa tàmm wéet ngir lan ngir boroomam baidan an innaas dafa tàmm sori nit ñi di wéetal boroomam looloo ko may mu wéet xelam nekk ci yàlla mu daal di tudd yàlla loolu mooy martaba saaniya الثالثة لأنه فادت عيناه بالدموع ndax ay bëtam wala ngaan na tuur ay rongoñ qawluhu waxu yonent bi li nag xadis la bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne rajulun zakara allah xaaliyan fa faadat aynaa waxu yonent bi la qawluhu wa rajulun zakara allah xaaliyan fa faadat ayna mu ne wa hada dalilu lixlaas fa zikruhu lillahi xaaliyan munfaridan abad an ilshubha wa an ilriya wa suma moom waa ji moom jullit bi lii day wane ne moom ku sellal la loolu tax mu wéet moom kenn xelam nekk ci yàlla mu fàttaliku yàlla mu daal di jooy loolu day wane ne moom dafa sellal tudd gi mu tudd yàlla moom kenn ci place bu wéet boobu kenn nekk fa loolu dafa sori lool suba lënd dafa sori lool riya ngistal dafa sori lool suma déggtal ndax bu fekkee day déggtalu moom waa ji kenn nekku fa di ko dégg su fekkee day ngistal kenn nekku fa di ko gis su fekkee dafa am lu lënt lu mu bëgg kenn nekku fa bay xam ne waa ji dafa bëgg nangam ak nangam moom kenn moo fa nekk mook boroomam xelam nekk ci yàlla mu daal di tudd yàlla bëtam daal di tuur ay rongoñ mu daal di jooy zakara allaha xaaliyan xaaliyal qalb dafa tudd yàlla ci jamono boo xam ne xolam dara nekk ci lu dul yàlla laa yufakkir fi shay gayrullah xalaatul lenn lu dul yàlla ba mu xalaatee yàlla comme yàlla dong moo nekk ci moom lan la ko jural ay bëtam daal di tur rongoñ law fakkara fi shay lam yaxsul lahu lbuka من خشية الله أو الشوق إليه لأنه لا يمكن أن يبكى الإنسان وقلبه مشغول بشيء آخر بقي su fekkoon ne waa ji dafa toog ci barab xalaat leneen lu dul yàlla du jooy kenn ci ñun du xalaat soxnaam jooy kenn ci ñun du xalaat njabootam jooy kenn ci ñun du xalaat alalam jooy kenn ci ñun du xalaat ay xaritam jooy loolu tax xol bi bi ci dara nekkee lu dul yàlla soo xalaatee loolu doo jooy moom nag dafa xalaat yàlla kese daal di jooy ndax nit munoo nekk di xalaat ci mbirum àdduna lu dul yàlla ay rongoñ di la dikkal loolu munul nekk mbokk jullit yi kayfa tabki shawqan ila allah wa xawfan minhu wa qalbuka mashgulun bi gayri naka ngay xalaatee leneen lu dul yàlla ay doom ay alal ay soxna ay nangam ak nangam naka ngay xalaatee leneen lu dul yàlla say bët di tur rongoñ loolu mënta nekk loolu tax yonent bi alayhi salaat wala sunu borom subhanahu wa taala waxal ñu ci alquran ne waa ji zakarallah dafa tudd yàlla wa zikrullah qad yakunu bi tilawati alquran aw bi tasbih aw bi tahmid aw bi du'a aw bi taskiri zunubi wa tawba ila allahi minha tudd yàlla tabaraka wa taala mën naa nekk ci jàng alquran tudd yàlla tabaraka wa taala mën naa nekk ci tasbix di wax subhanallah mën naa nekk ci tahmid di wax alhamdulillah mën naa nekk bi dua tàllal yàlla say loxo di ko ñaan ndeke buñ nee tudd yàlla tekkiwu rek da ngaa toog naan allah allah déedéet mën nga jàng alquran yaa ngi tudd yàlla mën ngaa def tasbix yaa ngi sabbal yaa ngi tudd yàlla yi mën ngaa def tahmid yaa ngi koy sant yaa ngi tudd yàlla mën ngaa yëkkati say loxo yàlla di ko ñaan yaa ngi tudd yàlla wala mën ngaa toog defoo yii yëpp waaye sa xelan ci sama bàkkaar yu bari yi naka laay tuubee naka laay delloo ci yàlla loolu sax ci tudd yàlla tabaraka wa taala la bokk sunu borom subhanahu wa taala mu wax ñi ci saaru quran ala imran 135 mu ne walladina ida faalu fahishatan aw zalamu anfusahum zakaru llah واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون sunu borom nee na am na ñoo xam ne wallazina iza faalu fahisha ñi nga xam ne bu ñu defee lu bon bu ñu defee bàkkaar bu ñu tooñee seen borom aw zalamu anfusahum wala ñu tooñ seen bopp lan la leen di jural mu ne zakarullah ñu tudd yàlla ñu fàttaliku ki ñu tooñ ñu fàttaliku bàkkaar yi bu ñu tuubulee ba dajeeg yàlla lan la leen di jural bu ñu fàttalikoo yàlla wastaghfaru li zunubihim ñu jéggalu yàlla seeni bakkaar ñu jéggalu yàlla ndax kat amul kenn kuy jéggale ay bakkaar ku dul yàlla wa man yaxfiru zunuba illa allah amul kenn kuy baale bakkaar mbokk yi ku dul yàlla waaye li ci doy waar mooy ku dul yàlla rek subhanahu wa taala defkatu bakkaar nga bépp doomu aadama defkatu bakkaar nga kulli ibnu aadama xatta wa xayrul xatta'in tawaabuun abdullah ibnu masud danoon wax sahabatul kiram law alimtum zunubi la rajamtumuni bil hijar hatta al maut abdullah ibnu masud ci kàngamu sahaaba yi la bokk da doon wax sahaaba yi mu àndal su ngeen xamoon samay bàkkaar man abdullah ibnu masud di ngeen ma sànni ay xeer ba may dee yonent bi ne képp doomu aadama da ngay def bàkkaar bàkkaar nag yàlla rek moo koy baale kenn du ko baale ko dul yàlla moo tax bokk na ci tey réew mi alku gi ñu alku ñu defa ne am na kilifa diine yoo xam ne boo tooñee yàlla da ngay dem ci ñoom rek ñu ne yàlla baalal diw mu baal la loolu tax na tey nit ñi saa yu leen neexee ñuy def ay bàkkaar yow da ngay trafiqué drogue wala ngay jaay yamba wala ngay jaay sa bopp wala ngay def lu bon lu neex nga nekk soo amee xaalis rek nga dem jox sëriñ bi mu daal di raay sa bopp ne la yow de yàlla jéggal ne la bu soobee suñu borom ëllëg di nga dugg àjjana loolu yomb na torop mbokki julit yi sunu borom subhanahu wa taala nee na ci suratu al imran bàkkaar li tax yàlla di ko baale walam yusirru ala ma faalu wa hum yalamuun soo defee bàkkaar bu ñu la nee lii bàkkaar la da ngay arrêté da ngay taxaw doo ko continuer doo ci nekk guddeeg bëccëg di ko def suñ la xamalee lii bàkkaar la da ngay tuub dellu ci sa borom tabaraka wa taala ngir mu baal la fa maana zakarullah huna lan mooy tudd yàlla fii ci hadis bi mooy zakarahu bil xawfi min iqaabi waa ji li tax mu tudd yàlla bi ci njëkk mooy fàttaliku na mbugalam yàlla moo tax mu tudd yàlla ragal na yàlla mbugal ko ndax mbugalum yàlla xejul ci doomu aadama waaye wal xayaa minhu bokk na ci li tax waa ji tudd yàlla subhanahu wa taala moom mooy waa moom waa ji dafa rus yàlla dafa def bakkaar mu yëg ne moom tooñ na borom bi tooñ na ki nga xam ne kenn waru koo tooñ kersa daal di koy dugg mu daal di tudd yàlla tabaraka wa taala yonent yàlla aadama alayhi salaam wax nañ ne lamma nazala min alsama ila al ard makasa salaasa mia sana lam yarfa raasa ila sama limaada li xayaihi subhanahu wa taala yonent yàlla aadama benn bàkkaar la am benn bàkkaar bi mooy lan wala taqraba hadihi sajara fa takuna min alzalimin bu leen jege bak garab gi su ngeen ko jegee da ngeen di bokk ci ñu tooñ yàlla ne fa akala minha lekk nañ ca ñoom ñaar yàlla wàcce leen ci kaw suuf Adama borom xam-xam yi nee nañ toog na ñetti téeméeri at xoolul asamaan yëpp dafa sëgg ci kaw suuf ñetti téeméeri at suy dox day sëgg ci xool ci kaw suuf lu tax ndax benn bàkkaar bi mu def ndax rus yàlla tabaraka wa taala mbokki jullit yi ñun ñu toog ci biir jumaa ji ak ci biteeg li ko wër ci kaw ak ci suuf kenn ku nekk ñaata bàkkaar nga am ndax bàkkaar yooyu yëngal na la ndax tiit nga ndax rus nga yàlla déedéet waa ji moom ragal na mbugalam yàlla rus na yàlla loolu lan la ko jural mooy ay rongoñam daal di tuuru wa qaala dahak zakaru al arda al akbar ala allahi wa qila tafakkaru fi anfusihim anna allaha sa'iluhum an hadha dhunub an hadha dhanb borom xam-xam bu tudd daxaak nee na gaa yi ñoom dañoo fàttaliku ëllëg yowmal qiyaam bu leen yàlla gaaralee ci kanam allahu akbar yowma idin tuuraduun laa taxfa minkum xaafiya keroo góor ak jigéen ñi danañ leen gaaral ci kanam yàlla xufaat oraat xurala kenn du sol yére kenn du sol tubéy kenn du sol mbaxna kenn jonguwul ñëpp dum ci kanamu yàlla xufaat uraat xurala yaay Aïcha daal di tiit daan ne yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam waaw yow yonent góor ak jigéen ci benn place ñëpp ne dum loolu moom dana doy waar yonent bi ne ko Aïcha keroog doomu aadama dana tal leneen lu dul xool awra yawman yaj'alul wildaan shiba keroog bu nit di judd rek bi jaaw liir bu bi jaaw keroog boo xam ne sunu borom mu ngi ñu koy nettali mu ne inna zalzalata saa shay'un azim yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma أرضعت وتدع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد kon waa ji dafa xalaat yowmal qiyaam bis bu màgg boobu ñeneen ñi ne déedéet ñoom dañoo xalaat ñoom ñii ëllëg yàlla dina leen taxawal ci kanamam bépp bàkkaar buñ defoon yàlla laaj leen ko benn par benn looloo tax waa ji daal di tiit ndeysaan fa mu nekk mu daal di jooy xaaliyan ba mu waxee rajulun zakara allah ñaareelu tomb bi mooy xaaliyan waa ji dafa wéet wéetaay boobu mën na nekk wéetaayu moom kenn kenn raxu ko waaye mën na nekk fa wa xaaliya alqalb mimma siwa allahu azza wa jal mën naa nekk koo xam ne xolam bi daf cee wéetal lépp lu dul yàlla yàlla rek a nekk ci xol bi ndax nit sooy ut wéttaliku utal wéttal ci yàlla xaaliyal jismi aydan mën na nekk koo xam ne aussi moom kenn moo nekk amul kenn ku ko wéttali laysa indahu ahad hatta la yakuna bukaa'uhu riya wala suma waa ji ndeysaan li tax mu wéet moom kese mooy buggul ngistal buggul déggtal buggul lënt looloo tax moom kenn moo wéet ak boroomam tabaraka wa taala ak xolam bu sell dara nekkul ci xolam mu daal di jooy ngir yàlla yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ay naani laa tamassahum annaar ñaari bët safara du leen laal ay naani laa tamassahum annaar ñaari bët yi yonent bi nee na safara du leen laal ñu ne yonent ban bët moo njëkk mu ne aynun bakat min xasiyatillah bët boo xam ne dafa toog rek mu daal di tuur rongoñ ngir lan ngir yàlla tabaraka wa taala ragal gi mu ragal yàlla moo tax mu daal di tuur ay rongoñ bët boobu safara du ko laal ñu ne yonent ak ban bët mu ne bët boo xam ne dafa fanaan ci frontière di garder jullit ñi balaa lu bon di dugg ci réew mi di dal ci kaw jullit yi waa jooju fanaan nelawul di aar jullit yi bët boobu safara du ko laal fa faadat ay naa mu daal di tuur rongoñ ngir yàlla haada an sabili l majaz nee na loolu ci li borom xam-xam yi naan majaz ci xam-xam boobu la bokk xam ngeen faydaanul ayn soo déggee faydaan mooy mbënn ndox moo xam ne dafa ñëw daal di dugg ci dëkk bi raatale lépp yàq ko loolu mooy faydaan moom lañ naan mbënn bu dee ci hadis bi nag mooy waa ji jooy yi mu jooy moo bari ndox mi bët yi génne wax nañ ne yonent yàlla daawud suñu boolee àddina bi yëpp lu ñu jooy aadama mu ëpp lu mu jooy ngir yàlla baal ko bàkkaar bi mu defoon yonent yàlla aadama suñu boolee aadama ak nit ñëpp lu ñu jooy daawuda moo ëpp ndax daawuda dafa sëgg sujjóot di jooy ngir yàlla baal ko ba foofu mu doon jooy sax ñax ndax yàlla baal ko kon mbokk yi ñun nan xool suñu bopp nanu xool sunu bopp ñee ay benn bàkkaar lañ def ñee dañoo xalaat ne ñoom bàkkaar rek lañ def dañ koo xalaat ñuy jooy ngir yàlla baal leen ñun nag ñu fees dell ak ay bàkkaar bu ñu wéetee sunu xel du dem ci yàlla bu ñu wéetee du ñu tudd yàlla bu ñu wéetee sunuy bët du tur rongoñ bal lu doy waar sax mooy même ci conférence même ci juma même ci xutba même même même buñ ñuy waar dañuy reetaan duñu jooyee aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwa alghafuru rahim alhamdulillahi wahda ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل إنما المؤمنون الذين إذا ذكروا الله وجلت قلوبهم sunu borom subhanahu wa taala nee na way gëm yàlla dëgg-dëgg yi innamal muminuun innama xam ngeen ne mooy adaatu xasr lépp lay dajale mooy way gëm yàlla yépp allazina ñooy ñi nga xam ne ida zukira allah suñ leen tuddalee yàlla mu ne wajilat qulubuhum seeni xol daa di lemu seeni xol daa di yëg màggaayu yàlla tabaraka wa taala yonent bi yàlla nee na ñii ñooy way jullit ñii ñooy way gëm yàlla loolu moo ngi ca suratul anfal mu ne wa huna riwaya fa faadat ayna min xashiyatillah waa ji li tax mu jooy ñëw na ci riwaya hadis yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na waa ji dara jooyloowu ko lu dul ragal yàlla ma aksaru lazina yabkuun iza ra'aw naasa yabkuun bal ma asraa zalika inda annisa wa hada min ba'bi ta'sir ak bëri tey ci ñun ñoo xam ne bu ñu gisee ku jooy rek ñu jooy loolu nag jeexital la waaye soo koy xool ci ñaari mbooloo yi góor ñëg jigéen ñi ca jigéen ña la ëppe lu ëpp ci jigéen ñi mooy bu ñu gisee ku jooy rek dañuy jooy wala lu ëpp ci ñoom buñ leen waaree ñu jooy waaye mbokk jullit yi loolu mooy tabi a doomu aadama bu ñëwee ci place mu gis nit ñay jooy mu jooy bu ñëwee ci place gis nit ñay ree mu ree loolu tabia la nekkul lu yéeme kon waaye li ci ëpp importance li war a jooyloo nit mooy quwatul iman wa sidqil yaqin yaqin doomu aadama ngëmam gi mu gëm yàlla moo ko war a may mu toog xelam nekk ci yàlla mu jooy ngir yaakaar yërmande yàlla ngir ragal mbugalam yàlla waaye mu am yaqin gu dëgg ci moom buur bi mu gëm li mu nekk li mu gëm moom mooy dëgg an yabki waxda an yabkiya wala yaraahu illa allah ndax day jooy moom kenn wala fa muy jooye yàlla rek rek moo fa nekk wala day jooy jooy yoo xam ne kenn du ko yëg kenn du ko gis kudul moom ak yàlla li wóor rek mooy la ca am solo mooy mu mooy tandiku ngistal mooy tandiku déggtal mooy tandiku lënt balaa jaamu yàllaam boobu mu def yàqu mbokk yi bu fekkente ne nag ay yuuxu la ak ay coow ak yëkkati baat ak ëppal gis ngeen yonent alayhi salaatu wasalaam ba mu amee doom ji tudd Ibrahim doom ji daal di faatu ñu jël ko di ko denc bi ñu duggee bàmmeel yi ba gas pax bi gaa yi daal di seen yonent bi alayhi salaatu wasalaam bët yeey tuur rongoñ saaba yi ne ko hatta anta ya rasulallah même yow li nga ñu tere woon lool ngay def yaa ñu tere woon jooy ku dee yonent bi ne déedéet terewuma leen jooy ku dee de li ma leen tere mooy yuuxoo ka xaacoo gajj sa bopp ak di bërëngu ak di wax amma lii ngeen gis nag dafa bokk ci yërmande yàlla bët yi day tuur rongoñ bët yi day tuur rongoñ xol bi di ko naqarlu waaye gémmiñ gi du génne lu dul lu yàlla gërëm loolu mooy jooy ci yërmande yàlla bët yi mën naa tuur rongoñ xol bi di ko naqarlu waaye gémmiñ gi du génne lu dul inna lillahi wa inna ilayhi rajiun allahumma ajirna fi musibatina waxluf lana xayran minha lool la amma di yuuxu di gajj sa bopp di bërëngu ak di ñaxtu diw nangam ak nangam ñun alku nañu dee nañ torox nañ kenn dootuñu yor suñu yaakaar tes na loolu moom ab jullit du ko def benn jigéen doomam dafa faatu ñu koy rob yonent bi dégg ko muy ñaxtu yonent bi ñëw ba ci moom ne ko tee ngaa ragal yàlla mu ne ko ragaluma yàlla tee ngaa muñ mu ne ko muñuma li nga li ma dal moo la dalul li ma dal bu la daloon nga def ni ma def yonent bi daal di koy romb woon ko ginnaaw bi yonent bi soree nit ñi ñëw ne ko xam nga ki doon wax ak yow mu ne déedéet ñu ne ko kooku mooy Seyduna Muhammad mu ne ay waay xaw ma ko woon woon leen ma ko ma tuub ñu wax ko yonent bi yonent bi ne ko as-sabru inda sadmatil ula muñ mooy bala mbir mi dalee waa boo bàyyee ba mu paase nga ñëw ne léegi maa ngi muñ fekk béy wéy na mbuus ixwatal iman anwa albuka façon jooy yi moo am zakaral imam ibnul qayim rahimahullahu taala ashara anwa lil buka borom xam-xam boobu ñu ñuy wax ibnul qayim leeral nañ nañu mu ne jooy yi fukki façon la am na ci boo xam ne bukaul xawf wal xasiya jooy ngir ragal wala jooy ngir tiit jooy ngir ragal yàlla jooy ngir tiit dajeg yàlla ñaar yépp mën naa nekk mën ngaa ragal yàlla nga jooy mën ngaa tiit dajeg yàlla nga jooy boobu mooy première bi deuxième bukaa ur rahma war rif jooy yërmande ak lewet nit yërmande mën na dugg ci xolam mu daal di jooy nit ak lewet ak ñeewant mën na dugg ci moom mu daal di jooy kon ñaar yi du benn ñetteel mooy bukaa'ul mahabba wa shawq mën nga bëgg nit rek nga jooy mën ngaa namm nit jooy ñett yi ma wax yépp benn du ci benn benn bokkul kee dafa jooy lu ko jooyloo dafa ragal yàlla kee dafa jooy lu koy jooyloo yërmande moo dugg ci moom kee dafa jooy lu koy jooyloo dafa am ku mu bëgg bëgg koo gis wala gis na ko sax mu daal di jooy léeg-léeg nga am gan mu tukki lu yàgg nga wàcc nga teeru ji ko mu wàcca bagage yi rek nga daal di koy jàpp taf ko sa dënn commencé jooy kon beneen a ngoog ñeenteel bi mooy al farax wa suruur nit mën na jooy ngir kontaan bik kon ñeenti yëpp du benn juróomeel mooy bukaaul jaz min al alam wa adami ihtimaali nit mën na am lu ko metti mu am lu ko naqari lool mu dem ba mënta supporter mettit bi mu toog di jooy loolu tamit am na waaye bukaaul hazn nit mën na jooy ngir naqar waa ji lu muy jooy moom de dafa am lu ko naqari lool moo tax mu muy jooy moo tax mu ne yii yëpp mu lim bi ci ëpp importance mooy ba nekk ci kaw mooy jooy ngir ragal yàlla mooy li waa ji def rajulun zakara allaha xaaliyan fa faadat ayna waa ji toog wéet moom kenn cundum xelam dem ci yàlla ragal na ko wala yaakaar na ko yërmande mu daal di jooy booboo ci ëpp doole ixwatal iman bu ci mën a nekk ci yii ñu wax doomu aadama bu koy def na fexe mu def ko ngir yàlla benn bu ci nekk ak moroomam nag du benn waaye yow bu la ci mën a dal fexeel ba soo koy def fexeel nga jooy ngir yàlla waaye bul jooy mukk ndax bu mujj bi ñuy bëgg a wax mooy jooy ngir naafeq xam ngeen ne naafeq yi li yàlla wax ci ñoom inna almunafiqin fi darki l asfali min an naar yàlla tabaraka wa taala xamal nañu ne ñii di naafeq yi lu ñu def ak lu mu mën a doon ëllëg pertaange la même bu ñu tuuree ay rongoñ safara lañ jëm ëllëg parce que yàlla mooy contrôler xol yi mbokk julit yi nañu góorgóorlu ci suñu bopp ñu delloo ci xel suñu diine ñu matt suñu diine ak suñu dëgëj ñu xam ne fii dañ fee jaar rek ay tukki kët lañ kuy tukki nag war ngaa xalaat ne yàgg yàgg yàgg da nga delluwaat sa tukki soo ci bàyyee xel sooy delluwaat dina neex waaye sa tukki boo ko sagganee booy delluwaat dina métti ci yow doo bëgg a dellu misaal bu gàtt tey ci àdduna am na ñoo xam ne tukki nañ rek ci réew yi nekk suñu wet suñ leen ko fekkee ne leen kaay leen ñibbi dañuy lànk na ñibbi wuñu lu tax parce que seen tukki bàyyi wuñu woon xel ne tukki dañoo tukki dañoo dem defa ne foofu lañ dëkk nekk fa ca la la neex waaye am na ñoo xam ne tey ku leen bettoon ne leen kaay leen ñibbi ñu takk bagage yi parce que xam nañ ne fañu di jóge woon bàyyi nañ fa xel ñun nag doomu aadama ay tukki kët lañ dañoo ñëw ci dëkk bu tudd àdduna balaa yàgg danañ fi bàyyeekoo dem dëkk bu tudd alaaxira tukki àdduna ak tukki alaaxira du benn tukki àdduna boo yëgee ci oto bi bagage yi nekk ci maal bi boo nekkee ci avion bi bagage bi nekk ci kal bi boo nekkee ci bato bi bagage yi nekk ci kal bi amma tukki àllaaxira nag da ngay jiital bagage yi doog a ñëw moo tax alquran ne wa ma tuqaddimu gis nga da ngay jiital wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allah alquran ne wa ma tafalu ba tey min xayr yaalamuhu llah ñaari aaya la yàlla nee na lépp lu ngeen mën a jiital ci lu baax ñi jàng arab xam nañ baat boobu yàlla wax min xayrin ci aay bu njëkk bi lu mu mën a tuuti tuuti tuuti yàlla nee na boo ko jiitalee di nga ko fekk ma dencal la ko waaye wa ma tafalu lépp lu ngeen mën a def encore ci dund àdduna bii min xayrin même baat la yàlla répété waat mu ne yaalamuhullaa moom yàlla xam na ko te ëllëg yowmal qiyaam moo koy fay kon nañ leen góorgóorlu bu baax a baax ñu yëg ne suñu bopp la ñuy liggéeyal liggéeyuñu ma sàmba liggéeyuñu ma demba tey coow bi lu mu bari ci àddina bi woote yi lu mu bari bari bari mbooloo yi lu ñu bari bari bari bari coow li lu mu bari bari bari ñenn dong ñoo nekk ci dëgg mooy ñi jàpp ci yàlla nee na ñi jàpp ci yonent bi nee na leneen lépp ay caaxaan la te balaa ngay xam ne ay caaxaan la nga dugg bàmmeel yàlla yëkkati la ci bàmmeel bi ne la loo xam ci yonent bi ma yónni ci woon yónni woon ci yow nga am problème kon mbokki julit yi musidɓe fulɓe caggal yettude allah e julde nelaɗo men muhammadun sallllahu alayhi wa alihi wa sallam khutba men hande wonno rajulun zakara allaha khaliyan fa fadat ayna oɗo musidɗo ko gorko walla ko debbo ko mawɗo walla ko cukalel ko galo walla ko wasɗo omo selli walla o sellani o jooɗima kanko gooto e bange makko ɓernde makko miiji allahu tabaraka wa taala ɓernde makko heewi gite makko gaddi gonɗi Gi- gite makko rufi gonɗi ha keewi holko saabi ɗum geɗe tati tagi musidɗo oɗo ɓernde makko miiji allah o woyi ge- geɗe tati ko adi hen li annahu kana min adhakirin saabu kanko kala ɗo jooɗi ɓernde makko allah no woni hen ko ɗum saabi hande o jooɗi o miiji allah o woyi ko gowɗo ɗum wadde par ce que hana wona hande o fuɗɗi ko gowɗo ɗum wadde gueɗal ɗimmal ngal woni li annahu kana fil khulwa fil khalwa ko ɓoyɗo jooɗade kanko gooto omo yeewi omo miijo joomiiko ɗum ne ko gowɗo ɗum wadde omo woɗɗiti yimɓe omo woɗɗiti nanɓe omo woɗɗiti yiide ɗum tagi ɓernde makko allah naati heen o miijii ɗum gite makko rufi gonɗi geɗal tataɓiijal woni li annahu faadat aynahu biddumu gite makko rufi gonɗi sabu yidde allah tabaraka wa taala sabu omo yiɗi yurmede allah omo yiɗi allah yaafomo ɗum tagi gite makko rufi gonɗi o woyi ndeke ɗe- geeɗo ɗeɗe tati ko ɗum wallata maccuɗo o hakkunde makko e allah ɗum tagi innugol allah jooɗade an tan bange ma e kadi gite ma rufde gonɗi sabu allah allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ittibaa wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba allahumma ya muthabbitu alqulub thabbit qulubana ala taatik اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قائدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تسمد بنا الآدى ولا حفظ ولا عدوا اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين mbokki jullit yi di fàttali sunu bopp di leen fàttali barab bi jumaa ji sunu jumaa la ñun ñëpp ñoo ko bokk barab la bu ñuy jaamoo yàlla ñun ñëpp ñoo fi bokk di ci jaamu yàlla guddi ak bëccëg suba ak ngoon korite ak tabaski waaye xam ngeen ne waa ji di xëccoo ñun fi ba léegi bàyyiwul mardi sax ñëw na fi waaye ba tey ñoo ngi ak moom rek di leen fàttali yoon ne pour yéen ñëpp ngeen jël seen responsabilité bàyyi xel jumaa ji bis bu ngeen fi négligé waa ji dina tabax fii te bis bu tabaxee fii xam ngeen ne jumaa ji day nekk leneen waaye dootul nekk jumaa loolu dañ leen koy bàyyiloo xel ku nekk ci ñun na jël responsabilité am lu mu ko war a jaral war na nu ko jaral moom benn nit la ñun ñaata lan moom benn nit la ñun ñaata lan nan bàyyi xel loolu bu baax a baax yal nan yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal nan yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko qumu ila salatikum yarhamukumullah